y no caí baax di leen ziar di leen bëggee ñi suivi sur Kewel Info du nuyu kilifa yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bi daatu Moustarchidine wa Moustarchidaat du nuyu kilifa yëpp di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm du nuyu ñaan ñi nekk ci loolu hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp di ñaan ñi nga xam te ne ñoo nekk ci prison yi yàlla neen yàlla génne di ci ñaanalaat ki nga xam te ne moom mooy ko ni ma ko waxee Lac de Guiers numéro 2 yàlla na ko yàlla génne ak albarka fa nekk ñëpp tey nag dañuy amaat mbégte contentement ngir miin ngeen ko suñuy écran di ko jaajëfalaat bu baax a baax mu nekk koo xam suma peer nekk suma xarit ñu bokk nga xam te ne moom mooy liggéey bi muy Modou Mbaye di ko jaajëfalaat bu baax a baax a baax du nuyu ki nga xam te ne mooy suma tata bi mu fekk di ko ñaana yàlla tamit yal yàlla barkeel lépp ci barke yonent bi yàlla jubóole leen ñoom si ay njaboot yu barkeel yàlla mën na ko yal ko yàlla def Modou Mbaye ñu fas waxtaan ak moom ci lamb yi nga xamante ni moom moo am la 30 mu nekk journée alburax euh, production wala alburax events di ci nuy ki nga xamante ne moom mooy bàyyi le PDG di ko nuy bu baax a baax Modou tamit di ci liggéey liggéey bu am solo muy la 30 bi kon ni ñu wax rek gis nañ nag wax dëgg yàlla apporté na ci touche yu extraordinaire dépp ba mu duggee alburax events ba tey di ko ñaana yàlla rek c'est le mo moom daal moom la moodu Modou moom la rek di ko ñaana yàlla moom it yàlla barkeel léppam yàlla gën a wéral baatam dañ koy dañuy fas yéene nag waxtaan ak moom ci làmp ci instant bi ndax miin ngeen ko ci li nga xamante ne moom mooy analyse yi ñuy def ci grand combat yi wala ci événement yu mag yi dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi maa ngi lay nuyu père. Euh, damay dañ may interroger su ma paree naa la woo dañ may interroger dañ may interroger dañ may interroger su ma paree naa la woo dañ may interroger su ma <laughs> Fatma Dia maa ngi lay nuyu man tamit maa ngi lay fay maa ngi lay siyaare di nuyu caméraman bu baax bi nga àndal Toumani di ko bégee di la bégee di nuyu sénégalais yëpp di nuyu téléspectateur ak euh, internet yu Kewel Info di nuyu Fallou Ndiaye borom kër gi di nuyu képp ku fi nekk rek di la siyaare di am mbégte teew nga teewaat tey ñu fas yéene waxtaan macha allah fas yéene waxtaanaat ci làmb comme ni ñu amee habitude di ko def rek tey nag nga teew Nord Foire fekkoo ma Grand Dakar muy sant yàlla nekk Nord Foire nekk ci bërëb bi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk ak suñu soxna. xam nga toog fi sant yàlla bu baax a baax yàlla yàlla def fi jàmm def fi xéwal di nuyu waa Nord Foire yëpp di leen bëggee mais di nuyu Grand mooy sama mooy sama Paris mooy sama France mooy sama lépp waaw non Grand Dakar non ñaaxuñu ma juste rek waaw juste rek récupérer parce que am na benn moment boo tolloo fa rek si àdduna am na foo xam ne foog nga xaw a toog concentré wu nekk ci yow nekk ci sa bopp aussi ngir jéem a fexe évoluer yow tamit dem ci kaw quoi waaw xëy na nag foofu lañ toll ci àdduna aussi toll foo xamante ne war noo mën a dem tamit jël sunu vie jële ko sunu bopp ndax suñu ay moroom rek ñooy def yu mel noonu te aussi yàlla leen ci jàppale loolu moo tax ñu nekk ci loolu sant yàlla bu baax nuyu waa Nord Foire yëpp di leen siyaare di leen béggee maa ngi Nord Foire mais c'est comme si maa ngi Grand Dakar ndax kër gi ma dendal sama benn copain boo xam ñoo dëkkandoo Grand Dakar moom it fi la dëkk waaw mooy loolu maa ngi sant bu baax macha allah maa ngi lay béggee maa ngi kontaan ci yow. am na solo kon ni ma wax sànq rek euh, ñu jëm ñu jëm ci nag ci événement boo xamante ne bu doy waar événement boo xamante ni dañ ne ay crème làmb da cee bokk wala ay mbër yoo xamante ni tey dañoo bokk ci làmb am coowu làmb am foo xamante ni am na fu làmb nekkoon ñu dugg fa bala ñoo ñëw nag ci grand combat bi dañuy ñëw Albourakh Events ñu gis ni ñoom dañoo demoon ñëwaat duñ na demoon sax dañoo defoon benn stand by ñëwaat ñu gis nag ba ñëwaatee ba tey macha allah changement bu bari dafa am. Mm-hmm. Euh, nan nga gisee loolu structure bi. waaw Events mi ngi bàyyi ko ci Aziz production Aziz production nekk structure boo xamante ne dafa am lu mu liggéeyal làmb liggéey na combat yu mag ci làmb ba leen indi na ci làmb Aziz production moo tëgg drapeau HBK Mbaye daf tëgg ko ay édition yu bari Albourakh bàyyi di rakkam Aziz dem ba mu yàgg sëriñam turandoowam tere ko làmb da ko bàyyil di tëgg làmb xëy na mu am ndigalu bàyyi tëgg moo tax mu bàyyi bàyyi mu ñëw mu tëgg bàyyi. ñëw ci période boo xamante dañ ko ci soxla pourtant alburax yàgg na parce que bo euh, Lac de Guiers 2 Boy Niang alburax a ko tëggoon mooy combat bu mag bi njëkk am arène nationale alburax moo ko tëggoon pourtant doon woon Aziz alburax la woon alburax Evans moo tëggoon combat boobu mu nekk loo xamante ne nii lu am solo la seen ñëw ci làmb day yokku làmb seen ñëw ci làmb dafay jaay làmb parce que ku leen xam xam leen ci événementiel ku leen xam xam leen ci. ci ci combat wàccaayu combat yu am solo ba tax na bu ñu ñëwee di ci def loolu aussi di ci liggéey lu am solo parce que ñu ngi gis ni nga xamante ne ni noonu la seen combat yi mel combat yi ñëw na mais teewul dañoo indaale seen site internet am seen façon boo xam moom la ñuy liggéey ngir mën a jaay seeni combat gis nga mbër yi ñu tëgg ñoom mbëri yu mag yi dañuy ànd ak ñoom fu ne di tourner ñoom yu rafet yuy jaay làmb loolu nag mooy àdduna loolu mooy liggéey bi liggéey bi dafa war liggéey bi dafa ànd ak qualité liggéey bi dafa war a ànd ak loo création loo xamante ne nii dafay tax làmb mën a yokk bul liggéey rek pour yow sa bopp Modou Mbaye day liggéey pour fayeku Modou Mbaye day liggéey pour boppam mais day liggéey lu yokk làmb alburax noonu la taxawee aussi ñu gis leen bi ñu ñëwee aussi ci côté làmb nit yi nekk ci làmb ñu bari ñu ci mën a côtoyé waaye nañ leen xëcc leen ci seen wet ngir mën a ñoom it yokk seen seen liggéey man gis nga dama fay nekk danga may gis des fois ci site internet bi ma am yenn affaire yu ma fay jàllale c'est parce que dañuy jàppalante bu weesoo liggéeyu làmb bi dañu am ay lien yu jege yu ñu boole muy Baye muy Aziz ñuy samay jarbaatu papa fonk sam papa nag lool bëgg ko jàppale ko teg ko palaas du ñu def lu ñu wowul sam papa moo tax ñoom ci lu ñu nekk man dama ciy nekk ba jeex ñu nekk ay nit yu baax yàlla yàlla sàmm leen te fi ñu bëgg a yóbbu làmb yàlla yàlla defal leen ko. Ah. Mm-hmm. am na solo mais ci journée la 30 boobu Modou dafa am ay combat yoo xamante ni euh, combat premier combat deuxième combat yooyu yëpp mën nañu wax ni grand combat la euh, dañuy ñëw ci combat yi nga xamante ne moo nekk ci biir combat yi Papa Boy Djiné Tapha Gueye waroon na. comme dafa waaw waroon na combat bu doy waar sax nag Tapha Gueye 2 Papa Boy Djiné Papa Boy mën na jaaree ci combat bi tàq ba faw waaw sport la làmb la xam nga. am na ay défaite am na ay défaite mais mooy mais ñi ko daan ñëpp Tafa Gueye numéro 2 kenn mënu ko ci ñi daan Papa Boy Djiné ñi ci mën Tafa Gueye 2 bariwuñu maanaam ci bëre ci kal ci technique léegi nag Tafa Boy Djiné tey bu daanoon Tafa Gueye numéro 2 effacé na lépp lu nekkoon ci ginnaawam lu lu nekkoon ay défaite comprendre nga Tafa Gueye numéro 2 bu daanee Papa booy Djiné du ko yokk lu bari ci làmb moom dafa am position bu mu taxawee ci làmb fi mu toll ci may chance ay raqam ak bëre yenn combat yi nga xamante ne dañ koy bëgg combat amateur moom foofu la toll Tapha Gueye numéro 2 du ko nag moo am ci xaalis du ko teree moo am ci jàppale mais combat la boo xamante ne ni daal pour man Papa boo Djiné moo ci war a def lépp moo war a xeex moo war a bëre moo war a daan ngir mën a moom am évolution ci fi mu jëm parce que xale la il est jeune il a de l'avenir devant lui Tapha Gueye numéro 2 n'a plus rien à prouver ci lamb il a il est trois fois champion ji ñëpp nangul ko ni dafa mën a bëre man am na booy mbër yu bari suñ ma woowee ne moom moo Tapha Gueye numéro 2 lañ may wax dama naan leen bu leen ko jol de moo leen man waaw moo leen man ndaanaanu bërekat la waaw loolu la demee moo tax combat la boo xam ne daal combat bi daal Tapha Gueye numéro 2 mën na ci dellu nekk ci place bi mu nekk ba tey mais Papa Boy Djiné mën na ci jaaree tàq ba faw waaw moom ñeneen combat yoo xamante ni donte combat yi ci nekk dafa bari euh, ndax présenté woon nga leen liñ ci war a waxee jeex na dafa xanaa day dañuy kiiwaat rek mbokki intorno di éveillé leen tuuti mais dafa am yeneen combat yoo xamante ni ku ci mel ni combat Liss ak Zoss ñu gis boobu dafa nekk combat boo xamante ni dafa am benn combat bu nekk ci kanamam mais Liss Ndiago ak Zoss bari na coow combat boobu ci côté Liss Ndiago jóge ci Pokola ñëw jël Zoss ñu gis ni ñeme bi mu ñeme Zoss félicité Liss bu baax a baax félicité Liss parce que <laughs> Liss dafa daanu ci moroomam dem jël magam te pourtant normalement bu ñu xooloon calcul yi Pokola Liss ko woon njëkk a te Liss waroon Pokola buy bëre ci allure ci ni classe bi Liss di bëreel la waroon bëre normalement Pokola waroon jël Zoss comprendre nga mais Liss est très bien entouré staff bu baax la am encadrement macha allah xaw ma leen. mais damay xool rek ni muy communiquer des fois ni muy préparer woo ni muy defee ma xam ne Liss mi macha allah il est très bien entouré muy combat bu am solo ci moom moom it bu daane Zos lu lu li moog Pokola paase na te bu daanee Zos est-ce que du sax xaw a jiitu Poko lamb la parce que ki daan la ñuy xaar ki bërewul waxuñu ci moom mais kii bëree di daan. kiy bëre di daan quoi mais muy bëre nag ak koo xamante ni nag ku doy waar te damaa gis ki muy bëreel mu mel ne ko xaw a soppeeku mu mel ne ku xaw a bëgg mu mel ne ko bëgg combat bi mu changé ñu gis Zoss muy entraîné entraînement yo mu daa mu daa def ñu gis Zoss boo yi wër ko boo yi dar ko ñu gis Zoss mu bëgg combat bi même ba ci communication buy wax nga gis ni kii bëgg na combat bi Zoss nag muy mbër moo xamante ne nii bu ñuy wax ci technique ci moom la fekk baax c'est un fin technicien sa façon de lutter ni muy taxawee ci géew ku mënul bëree doo taxawee noonu déedéet ku mënul bëree du sànnit ka tànkam nii dén benn ku mënul bëree doo def loolu mu mën a bëree loolu daan fi ay technicien booy ñaa ku ko daan technicien nga daan guy gi daan Issa Pouye daan Tidiane fay il a battu que des techniciens Tidiane Faye c'est le professeur de Lamsar mu nekk ndaanaan doon koo xam da nga koy jox cër pour daan ko waaye da nga koy jox cër waaye pour nga jeexal sa combat moom da ñëw imposer ko li ci yow bañ a xeex ak moom xeex bu bon ndax Zoss xeex xeex naa ku dul liis te ragalul waaw te liis mën na def benn erreur ci xeexam dootu ko dolli Zoss daan ko ci jël bu rëy moo tax combat la boo xamante ni nii liis concentration moo ko ci war une fois dans dans dans l'enceinte su duggee ci biir géew bi na concentré wu na jox cër adversaire am mais bu arbitre sifflé na ko agressé parce que Zoss du mbër mu ñuy bàyyi muy xalaat Zoss bis boo ko bàyyee mu xalaat mu nax la du mbër mu ñuy bàyyi muy xalaat ndaanaan la mais Zoss moom tamit xale bi muy bëreel am na ay atu am na lu mu bër am na lu mu mën Liss Ndiago bërekat la boo xoolee façon bi Liss Ndiago di bëree xoolal Liss Ndiago day bëree ci benn combat boo xam day am lu mu six ba sept clé ci benn action wala ci ñetti kele mu boole ko ci benn action def ko bu la defee lii nga bañ mu def la lii def la lee ah léegi nag combat la boo xam ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga noo war a waajalee ku ci nekk am nga noo war a ñëwee. mais nga xamante ni moom mooy Liss mais dañoo gis ne dafa am dafa mel ni Liss ak Ada Fass ñooy bëri yow tournure boobu nan nga. waaw làmb mel noonu. baala gay ak Modou Lo meloon na noonu ci combat baala Gaye ak Eumeu Sène Modou ak Balla Diouf. ñu doon def signature bi fii Bese Yawo Balla Gaye ak Modou Lo di xeex ba signature bi amul te ñoom ñaar bëre wuñ de day am jamono bu nekk day am ñaar ñu génn ñoo xamante ne ni seen ay supporters du ñu juboo du ñu déggoo du ñu mës loo wax ñu ne déedéet léegi nag ñaar ñooñu buñ buñ ci tollee seen même bu ñu bërewul sax bu ñu dajee signature day metti du yomb comprendre nga moo tax ko moo tax ñoom ñaar ku ci nekk rek na nga xam ne bërewu ma ak sa moroom bu dee da jël sa avance su bu ñu la bu dee promoteur yi comme promoteur dañuy def loolu jox la avance waa ne la yow ak diw ka nanga ma naam Ada Fass bu dee dafa daan guy gi est-ce que dina bëre Liss Ndiago waaw léegi bu dee dafa daan guy gi est-ce que dina bëre Liss Ndiago kii Liss moom bu daanee jos du gis ku dul aada ci kanamu aada lay taxaw mais kon aada ak Liss ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk victoire moom nga bëgg ci sa combat kii da koy bëgg pour daw songi aada aada bëgg da bëre ko daan pour avancer tuuti ne ko dépasse naa du ma sa guy gi laa daan comprendre nga moo tax ñoom ñaar seen combat ci kanam war na mën a nekk combat buy neex mais su ma doon liis njaago man du ma jël Ada Fass léegi waaw ah, dama koy wax xalaat bu mu topp euphorie bi coow li bari na rek mais bu mu jël Ada léegi xale la liis man naa bëri lool kenn dàq koo bëri ci génération am waaye combat bu nekk ak fi mu ko war a jëlee combat bu nekk ak fim wara war te combat bu nekk ak dayo bi nga ci war a am Liss buy bëreeg Ada Fass warul toll nii mu toll buy bëreeg Ada Fass daa war a am doole pire dafa bëreeg Ada Fass daa bëreeg Tapha Mbeur Tapha Mbeur daanu ci Ada Fass pour Tapha Mbeur pour Tapha Mbeur rectifié wu Liss Ndiago la jël dóor ko mu daanu mën na nekk nag cercle boo xamante ne kii daan kii kii daan kii kii daan kee mais su ma doon liis pour ma bëreeg Ada Fass non damay dem uti doole ju bari changé taxaw changé xoolal changé lu bëri ci man ndax Liss Ndiago Ada Fass seen combat ku ci daan yaay yaay doon yaay doon roi wu jeunesse bi yow yaay xale yi yow la ñu topp comme Modou Lo ak rek bi ñuy bëre ci allure boobu lañ toll. yaay doon la non kii sax banlieue la dëkk kii dëkk ville. mais yow yaa doon roi wu jeunesse bi xale yi seen seen morom yooyu yëpp yow ki ci daan da ngay génn ci loo boobu comprendre nga moo tax su ma doon liis dinaa dinaa dinaa dinaa xaalis bi war na gën a mën a bari doole ji gën a bari xame bi gën a bari supporters yi gën a bari ci liis te bu boobaa la jàppale bi di gën a bari waaw. Mhm. beneen bi euh, wax nga ko léegi Arafas guy gi jël nga leen jëlati leen mm. mu nekk combat boo xamante ni. di guy gi wax ni xaalis moo ko booleeg moom defet yi fu mu toll Ada Fass dafa prouvé beeg si ñu nangu ko macha allah mais combat boobu nan ko gisee gis nañ am na tension bi ci nekk. waaw du ñàkk tension ndax mbër mu mag la ak mbër mu bëgg a dem mbër mu ndaw ak mbër mu nekk ci yoon bëgg a dem muy loo am solo guy gi doon naan bëri na fekk nekk ëpp expérience aada njëkk ko ci làmb jiitoon na aada ñu ne 9 ans ci làmb. kon ki la jiitoo neuf ans ci làmb nag danga koy jox cër bu la neexee signature nga wax lu la neex signature la mais bu nekkee ci géew bi dafa am noo war a bëreeg moom parce que guy gi dafa am lu mu mëne guy gi mbër la boo xamante ne booy bëreek moom bu la xasee jàpp pour nga def action du yomb ak moom moo lay bëgg a moo lay bëgg a manipuler mbër la moo xamante ne nii day bëree tànk ndax bu jàppee sa ngemb rek day daw kott te bu côté bu bu la côté day jéem dugal li boppam ci sa biir te bu dugalee sa bopp boppam si biir bu jugee loolu bokk na ci ay fooram guy gi bokk na ci ay fooram mu bàyyi la yow mbër mi nga def sa ay pexe moom comme li mu waxal li mu wax aada keroog ne ko ma teg ma teg beeke bi ma indi beeke bi nga def say pexe bay bëgg dee mu daan la da ngaa fàtte guy gi nees dañuy wax guy gi Ama Baldé rek guy gi nees nees def na lu ne dem ba ci dernier action am guy gi daan ko parce que noonu la mel ndaanaan la boo xamante ne nii ku mënul bëre doo mën a défendre parce que contre kele parce que kele contre kele koy dindi te contre kele boobu boo ko jàngul doo ko mun moo tax guy gi mbër la moo xam bu jar a jox cër Ada da ko war a jox cër bu bari mais jox cër bi nag bu arbitre bi koy dindi ju dox nànk jëm sama kaw adversaire dóor la jàpp la imposer la li nekk ci man guy gi boo benn bennalee doo ko daan donte aada nag ndaanaan la adversaire bu sérieux la ci guy gi guy gi nag mi ngi bëri xale guy gi mi ngi bëri xale bu toll moom fi mu tolloon mooy maanaam mi ngi bari xale bu nit ñi bëgg ndax moom nit ñi dañ koo bëgg mi ngi bari xale bu bëri supporter guy gi daa bari woon supporter mi ngi bari xale bu làmb bëgg guy gi làmb da koo bëggoon guy gi bëri na fi sa dawalal boppam ñëw ceesaat bi def na fi lu ne ci làmb ndaanaan la mi ngi bëri xale bu toll fa mu tolloon xale boobu nag mën a bëre loolu am technique am technique bu bëree nga xam ni kii ndaanaankat la dëkk ci dëkku làmb te ay nitu làmb di ko dar moo am nag ay façon am xeex foorul ci moom lool aada mosuñu ko gis mu jaay mu xeex xeex bu metti mais mu war a bëre combat boo xamante ne nag pour mu am ci li mu bëgg faaw mu xeex ak adversaire am xeex ak moom daw jàpp ba pare teree guy gi jàpp parce que bu guy gi jàppee aada jàpp combat bi du gaaw jeex. gaaw a guy gi bu la jàppee ba action boo def mun la baaxul te bu la ëppee doole daan la. guy gi jàppay bëreem. aada li ko arrangé mooy jàpp def action jàpp bu def action bu wóor bu gaaw. jàpp lu gaaw bëre lu gaaw déstabiliser sa adversaire xool combat yi nga xamante ni moom la daanoo nga xool faay bi faay bi mu def parce que am na mbër lu mu aay aay am na foo xam boo ko fa yeggee daan ko nga xool parce que il faut adversaire tam tàmm il faut mbëri tàmm di étudier seen ay adversaire dina leen permettre nga xam ni ngay bëreek moom nga xam fi ngay tàmbalee fii ngay tàmbalee fii ngay jeexalee loolu lu am solo lay doon mais combat la doon boo xamante ni daal lu ma la ci mën wax gaw ma ni xeex bi dina ci bari mais moo war a tijji làmb ji xeex bi moo war a tijji làmb ji pour buntu am ñoom ñu bëri. mais ñoom gis ne euh, guy yi mu ne dafa doon piéger ki nga xam te ne moom mooy aada dem na ba naan ko liñ la wax amul ci côté blessure gis nañu aada face poids bi dafa yokk est-ce que euh, poids boobu noonu mën naa bëri guy gi. il faut mu am doole de pour bëri mais nag doole du poids doole du masse doole ci yax la te aada xale la warul mu néew doole te loolu mu toll noonu war na ko mën a indaale ci doole mais nag man je suis pas d'accord mbër war a bëre ci deux mois nga changé ci je suis pas d'accord entraînement moom entraînement moom bu dëgg rek ni taxee wax bi ci gën a naturel moo la gën gis nga nit ki am poids wàññi ko man moo ma gën a nit ki tuuti ngande nit ki am poids wàññi poids bi ba mu doon doole moo ma gën a nit ki tuuti ba mu yàgg mu volume est-ce que volume ba doole lay doon mais lu ci mun a am il faut que aada am doole pour résister guy gi il faut que aada am doole pour mën koo tegal li mu bëgg bu fekkente ne nag loolu mu indi doole la doole guy gi bu oosee dama koo ragal te keroog guy gi bi ma gis signature kanam gi daa jeex tax ki ma gisoon yaa deux trois semaines xaw ma yaa deux semaines bokkul ak ki ma gisaat ki ma gisaat kanam gi jeex na xaw ma nag mais daal nuru na mu ko changé ci làmb ji. communication Adama nga koy laaj kër démb guy gi ñu gis Ada Fass ba defee sorti ne ko li lay daan mi ngi biir géejawaay dañoo gis guy gi dem lalu te ba mu luyee lëloo par rapport guy gi bu ñu doon gis am na différence est-ce que euh, message boobu ko Ada joxoon amul dara lu mu yokk. waaw des fois mbër dugal mbër ci combat gars yi daan nañ ko wax ci bala gay gi <laughs> Balla Gaye Boy biñ defee signature bi Balla Gaye xaw ma lan booy ñaa wax la ñu ne booy ñaa dugal na Balla ci combat bi ah, yooyu day am des fois waaw baaxoo goog yooyu waaw waaw booy ñooy loolu day am des fois mbër dugal la des fois sa adversaire dugal la ci biir combat mais bon lu ci mën a am rek mooy champion daal mooy mbër euh, fan ma mbër doole mbër doole guy gi daan arafaas guy gi daan arafaas day tax mu taxaw mu nekkaat ci place bi mu nekk rek ah daay yokk bu daanee guy gi waaw guy gi bu daanee arafaas guy gi daan na Ama Baldé mi bëri grand combat la ci xaalis la ci am na ci xaalis fay ñu fay ko xaalis mu bëre mais bu daanee arafaas tey guy gi daan na ku raw arafaas daan ki daan arafaas zarko moo daan arafaas guy gee daan zarko ban guy gi la rek. guy gi la rek moo tax combat la boo xamante ne nii su ma doon aada jox cër grand bi de. Ah, aada daan guy gi moom day yóbbu aada ca kaw aada bu daanee guy gi rek rek guy gi la daan dem bëreeg Bombardier mm-hmm. wala bëreeg Sa Thiès non. mu bëreeg guy gi. mu daan Bombardier kon rek rek daa daan guy gi bëreeg Sa Thiès ah, ah, te aada wax aada wax na ko guy gi ci signature bi ne ko ñi la daan ñëpp ñu ngi ci kaw te loolu laa bëgg daan la dem ci kaw mais avec la manière guy gi du ko ñuy manipuler de. Hmm. bu neex combat bu neex boo xamante ne nii ku jàpp ni Ada Fass amul doole mën na nax boppam mais ku jàpp ni guy gi mënul daan Ada Fass mën ngaa nax sa bopp. parce que làmb xama nga làmb day wor làmb day yi dañuy wor da gis benn mbër ci un mois mu toll nii nga gisaat ko mu toll nii kooku déjà wor na ndax changé na li nekk ci moom moo lay wan ni combat yi des fois di ci sax teel a wax baaxul bàyyi ba ñëw ci semaine bi bu mujj bi nii nga mujj leen a gis xool li ñu indi di ci wax foofoo gën a wóor waaw. Uh-huh. Uh-huh. fi jeexale ak yow muy euh, ci le 30 bi combat boo xamante ne ñëpp ñu ngi koy xaar muy ñaar ñoo xamante ne dañoo namm dañoo namm victoire. Gris Bordeaux gëj naa am victoire donte mi ngi bëre Ama Balde année blanche bu mu def jël Modou Lo ñu gis ne donte échoué wul sax parce que bëre daan Modou Lo mais ñu gis ne am na lu mu ko xaw a yàqal tuuti mu jël Gris Bordeaux amaat benn avance bu koy xaar combat Gris Bordeaux Ama Balde. Gris Bordeaux Fass la mujjee am victoire Ama Balde Gris Bordeaux Pikine la mujjee am victoire Ama Balde Fass la mujjee amee victoire waaw ah, la mujjee daan. Gris Bordeaux Tyson la mujjee daan ku ci nekk sa victoire bu mujj ci sa dëkku moroom nga ko amee ah kan mooy am deux deuxième victoire bi dimanche lay leer Ama Baldé xale la mën naa bëre am na sañ-sañ am na fit am na fulla am na fayda bëgg na làmb fonk na ko te respecté na adversaire ci biir géew da lay jox cër day bëre ak yow bëre bi war am na ay façon am na ay facette am action bu koy def du ko yaagal buy bëre yow day ñëw ne la lii laa lay def lii laa lay daanee ama day bëri di dóor tànk ndaanaanu bërekat la ama day jàpp sa tànk jàpp sa ndigg dóor la tànk ama balde day bëre ak yow nga jàpp nga nga nga nga nga nga arrière moom mu daw boole say ñaari tànk noonu la am a neex ama balde day bëre ci facette yu bari muy bëri ak koo xamante ni nag ñu bëri dañoo gis ci moom xeex mais bëri mën na bëre Gris Bordeaux dafa mën a bëre ama seen ku bëreek moom loolu Gris bëreek moom rek mën ngaa bëree Eumeu Sène fi Gris Bordeaux li Eumeu seen def yëpp pour daan Gris ba ci action bi muy mujjee bi jël bi di amee Eumeu seen tànte na ko ay ñetti yoon à chaque fois bu defee appel ci tànk bee pour dugal ci xabal bi Gris Bordeaux ne ko baaxul loolu dalay ku mënul ku mën ku mën a défendre rek mën ngaa bëree muy combat bu doy waar Gris Bordeaux la Ama Baldé attaquant la Gris Bordeaux raar na ma seetaan combat bu mu taxaw xaar xaar adversaire am Ama Baldé raar na ñu seetaan combat am mu taxaw xaar adversaire am day dem wuy jëla ama benn mbër mos a ci kawam Malick Niang te defaatu ko comprendre nga mu nekk combat boo xamante ne nii mën na am bagaar mais du ci bari te bu dee dafa am bagaar mën na nekk ci côté Gris Bordeaux mën na favoriser Gris Bordeaux Gris Bordeaux la à favoriser parce que déjà ñoom ñaar dañuy teg ñaari ta pied droit ku ci nekk pied droit ngay teg dañuy jàkkaarloo di ko am na ku ci mal déplacé wu ama mën na mal déplacé wu ku Gris bu ko dalee mën na koo sonal donte ama nee na Gris loxo bi xorul Gris Bordeaux buy dóor Ama Baldé na moytu riposte Ama ndax Ama ci riposte la daanee Malick Malick Niang day di door di dóor bi ko Ama dóoree benn coup Malick Niang fa taxaw maanaam ci riposte la ko Ama daanee comprendre nga bëre ak moom daan ko mu nekk combat bu mu nekk combat boo xamante ne ñoom ñaar la 30 dina am technique dina am xeex dina am ambiance dina neex Fatma Dia derbi bi gën a neex ci làmb moo war a am dimanche muy Fass Pikine gis nga derbi bi bu musaana am billaay Sandaga yëre bu rafet du fa des derbi bi su amee HLM yére bu rafet du fa des gis nga jigéen góor ñëppay génn parce que feet la ndax Pikine ak Fass la ñaari dëkk la yoo xamante ne nii yu doy waar ci làmb ñaari dëkk yoo xam dañoo xamante génération yi mus a am ci làmb yëpp bu ci nekk ci génération bu ñu mus a toll Pikine am na fa mbër Fass am na fa mbër ñu dage ñu ne ñu ne ma ñu ne Falaye Baldé la woon ak Boy Naar Fall ñu ne Papa Diop Boston ak Mbaye Gueye ñu ne Moustapha Gueye ak Tyson Moustapha Gueye Balla Gaye 1 Moustapha Gueye Balla Gaye numéro 2 Giri Bordeaux Ama Sène Ousa Saw Jules Balde magu Ama Giri Bordeaux ñu ngi ko ajee ci combat Ousa Saw Jules Balde ñu ngi ko njëkk a suspendre six mois ci làmb ci combat Ousa Saw Jules Balde ndax boobu Jules Balde daa war nomba Ousa Saw mu dugg ci biir géew bi bif Jules Balde boobu lañ xamee ci action boobu lañ xamee Gris Bordeaux ci làmb Lac Rose Aliou Mané Lac Rose Mamballa yooyu yëpp ay combat derby Fass la est-ce que gis nga Lac Rose Aliou Mané Mamballa ni combat bi di mel cuuju Fass ak cuuju Pikine bu ñuy bëre sa combat bi day neex day fees nit ñi dañuy ñëw parce que ñaari dëkk yooyu ñoo mel noonu derby la loolu mooy classico wu làmb ñu ciy ñaan yàlla yóbbu ñu ci jaam. defet interdit pour ñaari mbër yëpp. defet interdit pour ñoom ñaar ñëpp. surtout sax ak surtout sax ci Gris ci Gris la gën a bon parce que Gris ama euh, Ada Fass day bëri ci bis bi Ada day bëri ci bis bi te fas la bàyyi ko te Ada Fass lay sant Fass di génn tiigaram di dem Fass di génn xale bu mu yaakaar di dem Gris Bordeaux bu dee dafa daan day confirmé fi mu nekk ci Fass mais bu dee dafa daanu tey jii ñaan boo ñaanalu ma ko dañuy waxtaan rek bu dee dafa daanu tey ji Ada Fass daan wa fas dañ naan day wax leen booy surtout surtout booy waga yi mel ni man aada rek la topp bi dootoo kenn mooy loolu comprendre nga moo ta combat boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk dafa am li la war Ama Baldé war warul nangoo daanu toolu maamam la la wax Modou Lo moo ko fa njëkk a fekk daan ko fa ci combat royal mu jël koo xamante ni nii Modou daan na ko tamit ñoom ñaar ñoo war a daje. ah mais ama ak Pikine ni mu mel position bi mu nekkee pikin moom daanu na Boy Niang daanu na Eumeu Sène daanu woon ba pare ñëw njëkk leen a daan te ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi ci combat ba pare ñu bokkaat beneen adversaire ah dama ni ko Ama Baldé bu daanoo ci combat bi dina doy waar lool ci moom Gris Bordeaux tamit bu ci daanoo dina doy waar mooy maanaam défaite interdite ci ñaari mbër yëpp daanu faaw ma waaye loolu moom mënuñ ñàkk xaa ñu masinil xaa ñu masinil oh, te gaw ma machinil am gaw ma machinil am mais bu machine amul ama na moytu forcé na ama balde moytu force action na moytu force action parce que mi ngi bëreeg mbër moo xam moo ko ëpp laf te tamit ñaari champion yi maa ngi leen di wax kenn ki bu mu ñëw ci làmb ji bëre bi metti mu tëj bëre bi nañu tijji bëre bi ku nekk bëree bu jël waree am mu am. d'accord am na gisuma gisuma yaramam yaramu neenam mais loo si mën a dégg gis naa leen ñu ngi ci forme Gris Bordeaux am na tolluwaay Gris volume na Gris volume na est-ce que du volume boobu la xëy na moo la jàpp ni moom la war a mën a bëreek Ama Ama sec na toll na na mu daan toll comprendre nga ñu ngi ci état yu baax jàpp naa loolu wax dëgg yàlla loolu laa jàpp ne ñoom ñaar ku ci nekk indi nga état de forme bu baax bi nga war a indi léegi nag li ci des nag mooy le 30 ñu sumeeku ba ñu sumeekoo ci lañ ñuy confirmer ni état de bu baax na wala baaxul waaw. non le 30 moom làmb bi ñuy dund làmb du ko dàq. waaw làmb bi ñu nar a dugul dund la 30 làmb munu ko dàq te làmb du ko dàq parce que ñu ko tëgg ñu koy bëre. mais armé ndigal bul laal gàkku bul laal gàkku deux armé ndigal bul laal gàkku deux combat dof yooyu ñooñu nga xam ay dof lañ. surtout ndigal ak armé ñooñu nga xam seen combat du sedd. dox moo ko wax. ndigal laal gàkku ko dama ne la journée boobu. journée da du ko dàq. ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si jàmm. ñu dem incha allah mardi prochain moom maa war a def Bantamba tooguma plateau. non dam billahi sama xol bi sedd na guy man balaa waa deux dama leen di meree buñ ma tegee plateau bugguma di toog palaato mari may bandamba Sénégal yëpp laa koy wax préparé leen fii laa ko lancé sama micro doom ji préparé leen mari incha allah bantamba bu doy waar fu ne dinaa fa dugg bu neexee lu gars yi feeñul comme d'habitude waaw comme d'habitude lu gars yi lu gars yi génnewul rek dinañ fas lu leen lu leen ñoom joxul rek mën naa leen ko jox ah, incha allah xale moo koy def te léegi boo lool ci côté yëpp xale yi la benn côté rek moo des te dinañ ci dugg muy CNG. mais fan yii def nañ defuñu fi dara championnat d'Afrique kenn yëgu ko. waaw dégg naa pej bi kañ nekk def créer léegi mënoo leen ñëw ne Sénégal dëkku làmb la. Afrique yëpp xam Sénégal dëkku làmb la ngay def championnat d'Afrique ñun ñi nekk ci làmb yëguñu ko. yëguñu ko man ci jour bi laay soog a yëg ñu ne mais mais le président Bira Sène du ñu def ay commu du def ay communiqué ñu liggéey ci woo presse bi ñu liggéey si fexe sénégalais yi ñëw invité yi ñëw ñu xam ne Sénégal fii dëkku làmb la boo demee Niger li lay wuy si ci làmb keroog bi ñu ñëwee fii wuy si wuñ leen liggéey liggéeyuñu fi dara ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp groupe boobu yëpp la mais Babacar keroog mer na kuy Babacar Babacar mer lu mer parce que ñoom liggéey parce que communiqué wuñ si jàppale wuñ ñu ñoom lu ñu foog pour ñoom ANPS la ñuy dem ANPS ANPS ay journaliste lañ ay ndaanaan lañu mais du ñoom ñooy ñëw làmb doo ANPS ñooy ñëw làmb nañ waxante dëgg làmb dafa am ñu fi ne ñoo xamante ni nii chaque combat da nga leen di gis ñu ciy rey seen bopp nekk ci promotion bi nekk ci lu ne na ñu ñëw liggéey ak ñooñu CNG bu ñu bëggee def tëgg mbapat ñëw ci ñun bu ñu jaay sa cérémonie bu ñuy def affaire africain naan ANPS la ñuy dem di jaay affaire professionnelle nañ bàyyi yooyu nañ ñëw ñu ànd ñu liggéey ñu jàppale leen pour làmb mën a dox mais CNG bi nii muy liggéey ni doxul nañ ci wax de général Malika ndaanaan la ndaanaan la il le mérite général Malika mérito na lépp ci lutte simple ndaanaan la tarbiyu na lutte simple bëgg na ko fonk na làmb te bëgg na goxam cuuc gi bëree Malika général bu Malika ñëw nga gis ko mu toog na la di fecc wàccee boppam nekk champion félicitations à lui dina am leneen lu dul loolu général bu Malika dina am leneen lu du lool parce que ndaanaan la ma général bu Malika dañ daan xuloo laaj ko da daan bëree ba pare ñëw ci man ma ne ko waxoo billaahi mu lan la ma ne ko yow waroo bëree nii yow waroo def lii yow waroo bëree na xeex ñëw ma ne ko waxoo looy xeex bëree na ñu dóor ko ma ne ko du ma ne ko ñu dóor la doo fayu muy dem ba ba ba ni ñu bëgg mu mel ko muy mel noonu parce que jàmbaar la champion la te ku jëre jàppale la na ko waa Sénégal jàppale parce que mi ngi sol suñu drapeau di ñu défendre am na fi combat ci carrière boppam équipe nationale nekk regroupement mais mais dafa dem bëri ji combat bi daf ko bëree ba pare nekk regroupement équipe nationale te pourtant regroupement équipe nationale léeg-léeg dañ lay wàññiloo sa poids est que tey jii poids boobu mu wàññi est-ce que adéquat woon na combat te yooyu yëpp moom def na ko pour réewam ñu jar a jàppale lañ Tony Junior ñooñu ñooñu xale yooyu ñu jar a jàppale lañ ay ordinateur ñu jar a jàppale lañ parce que ñu ngi défendre couleur dëkk bi ñu ci profité di ko wax le ministre des bi fi nekk nii sunu ministre bii Khady Diène mbër yi na leen jàppale na leen gestu na leen bàyyiwaat xel surtout ceux qui portent les couleurs du les couleurs du pays les leen bàyyi xel da dañoo bokk ci dëkk bi dañoo bokk ci équipe nationaux yi nga xam équipe nationale yi nga xam ñi ngi ñi ngi doxal dañoo bokk ci équipe nationale yi nga xam da ñi ngi indi ay ndam ci dëkk bi kon nañ leen gën a waat xel te ñu xoolaat ci CNG bi jël ay xale teg leen fii mhm. dafa ni coow làmb bari na ci entre booy yeeg booy gis nañ ama neexuru na kalaaf bi coow li ci amoon Doudou Sané ak ki nga xamante ni moom mooy booy bi catu yaraax ñu gis làmb dafa am ñu ne dafa ñoom tey dañuy saboté làmb loolu nan nga koy gisee. làmb coow la am mais am problème coow coow coow yooyu yëpp ay coow la ci la bokk yooyu boo amee damay xaw a kontaan naa la de <laughs> xam naan ñi bokk te ñooy laxasooy goj man ak yow ay xarit lañ mais est-ce que fàttaliku nga ni am na bis mus nañ laale mënul ñàkk ma wax la loola na xari wala nga wax ma ko wala ma def la ko te bàyyiwu ma si xel def naa ko dund naa ko ñëpp ci làmb ji parce que ñi bokku teeñ ñooy laxasoo ay goj munumaa nekk ak Fatma Dia ci benn milieu wala ma nekk fa ma nekk ak keneen ci benn milieu noo ñu bokk lu ñuy liggéey ba pare ku nekk di défendre dëgg bu dee dëgg dëgg moo tax ngeen di liggéey faw ngeen jàppante bu ngeen jàppante nag ci la ku ci nekk di xam sa moroom mooy kan bu beneen na tey ma xam ni may doxee ak moom ak ni may doxaleek moom loolu la il faut jàpp jàppante yii di am pour beneen yoon ñu xoolaat na ñuy dundee man jàppante fi ak ay nit yu bari jàppante fi ak ku nekk mais mais tey beneen tey ñooñu ma jàppanteel beneen yoon damay xam ni may dundeek ak ñoom tey bu fekkee ne dafa am lu ma wax loo xam dafa déranger sama xarit bi ba moom mu jara ko mu génn def sorti mais bu beneen yoon la tey su ma koy wax même bu dee loolu dëgg la ci man mais dinaa xool nu ma koy waxee ba du gaañ ki ba du def sorti su ko defee du doon tontonte na doon dëgg man nag bañu ma ko ma tontu ci dëgg ku nit bu waxee yow nga am dëgg génnal nga tontu parce que dëgg moom mooy njëkk mooy mujj te am na yenn wax yoo xamante ne bu dee dañ la koo wax aussi nga toog tontu woo day nuru dëgg moo man lu ci bari yeeg rek ñu laal ma yenn yoo xam damay génn tontu parce que du ma bëgg sénégalais bi nga xamante ne mi ngi toog ne déggul sama version mu gëm li kale di wax waaye daal lu ci mën a am dañ ko rafetal te xam ni koo jàppanteel tey mos ngeen a waxante rafet ci biir laam làmb ñun ñëpp da xamante nañ de dañuy dugg léeg-léeg dañuy jékki-jékki ñi nga dégg ci coow li yëpp toogandoo ñu ñëpp ñu toog ci benn salon waxtaan yu jolli ku ne di wax lu baax ci sa moroom ku ne di wax li nga bokk ak diw ñu ngi wax ay coow Aziz Ndiaye ak Abdou laxaat Ndiaye ñoo bokk Alima Jigéen Ndiaye fa ñu bokkee sax dafa sori billaahi ñoo bokk njaay Ndiaye bi ci Aziz mooy Ndiaye bi ci Lahad ñoo bokk deret ñoo bokk lu bari léegi nag boo ko déggee comprendre yow nga comprendre lu xew nga ñëw bëgg ci dugg yaa ciy des après ñoom bu ñu leen dàqoon nii ñooy ànd ñibbi kajoor man nag moom bëgguma wax bu ñaaw bëgguma ñuy defante lu ñaaw parce que ñun ñoo far ñoo bokk ndey ak baay encore une fois nag faat ma la presse Fatma lii dafa cher micro dafa cher ma temps bii nga ma may ma toog di wax dafa cher ku nekk ak may gis. sénégalais may gis ku dul sénégalais may gis nit ak may gis ku dul nit mi ngi may gis waaye borom bët bu mag bi mu ngi gis lépp luñ ci wax na rafet Fatma bul mus a dem nit ci micro bul jox nit micro mukk ne ko Modou Mbaye lim la def wala Pël lim la def wala Babacar lim la def wala Lamine lim la def bu ko mus a def ndax musoo koo def de musuma la ci dégg te bis bu ma la si déggoon woo la mais bu ñu mus a def loolu ñun ñoo moom affaire bi. ñun ñooy mujjee affaire bi puso bi ñun buñ ko mujjewee mu réer suñuy loxo suñuy doom suñuy raq buñ ñëwee lu ñuy def nañ ko rafetal presse mooy quatrième mooy mooy troisième xaw ma quatrième pouvoir réew mi quatrième pouvoir réew mi amee nañu ñu jàppante nañu booloo lu am ci réew mi presse daf ci am wàll Ablaye Wade li ko fal presse ci la bokk Macky Sall li ko fal presse ci la bokk Jomaay Basiru Jomaay son excellence li ko fal presse ci la bokk kon ñun nañu xam suñu gëdd nañu xam ñooy kan suñu micro yi buñ koy tàndar buñ ko tàndar n'importe qui te bu ñuy jox micro yi nit muy wax lu bon juste pour am ay vues ëllëg dafa am te bu ëllëg ëllëgee nit mën ngaa wax dara nit xëy ngeen daje feneen foo xam lim lay jëriñ munoo xam sax lan la man de ku mu musa wax lu ñaaw ci micro maa ngi koy jégalu toll naa foo xam ne sama àdduna billahi ku wax lu ñaaw ci sama micro man musul génn mais doog duma ko génnee te ma dégg nga wax lu ñaaw naa ñëw ba ci yow bul wax lii àdduna dafa gudd tànk dafa garaaw damaa mos tooñ benn nit ci télévision dama koy réccu ba tey dama ma wax turam patte naa ko pare naa ci jégalu woon naa ko xëy na jégalu ma nag mais damaa mos a tooñ nit ci télévision dama koy réccu ba tey dama ko mos wax lu ñaaw dama koy réccu ba tey ndax àdduna laa bi ma koy wax boobu maa ngi soog a def télé nekk xale mais àdduna dox na tey ma am expérience xam ne man hii man li ma waxoon njombe de fexe ba ut numéro kooku fexe ba jokkoo kooku message ko ne ko baal ak dama laa tooñ woo télévision mu ñëw ma def sorti ma tudd turam ne ko man maa la waxoon nangam maa la tooj maa toogaat ci télé bëgg nga baal ma baalu nag mais amul solo mais daal maa ngi wax ku mu mën a doon bu ñu wax lu ñaaw baaxul day yàq ñu àndaat bokk ndey bokk baa yàlla na yàlla def jàmm yàlla na yàlla sàmm la kontaane naa la sama frère waaw Ah. ma sama xarit la dégg naa sax mi ngi doon ut sama numéro pour woo ma na sax woo na ma maa ngi koy bégee maa ngi koy nuyu lii mooy àdduna nattu la yoon ci yàlla Yusufa ko gën yonent la yàllaa ko sàkk te da ko teg dafa dugg kat Sëriñ Tuubaa sang la yàllaa ko sàkk mu doon ku baax dafa dugg kaso gis nga yàlla suñu borom bu la bëggee am fu mu bëgg a yeggee yow da teg nattu xëy na nag nattu yi mën na jaar ci ay njuumte léegi njuumte yooyu yëpp daf lay jàngal pour bu beneen yoonatee man chaque jour wala def naa ay jamono loo xamante ne dugal na ma kaso mais yàlla du ko dogal ci sa jëmm wala dogalu ko woon ci jamono boobu ci sa jëmm ci ku ko yàlla namm moo am mais moom na muñ te dama xam ne lu metti góor rek lay dal gis nga foofu mu nekk ay moroomu góoram la fa nekkal mi ngi fa ak samay xarit mu ngi fa ñoo xam maa ak ñoo ma doon toog comme nii ma toogee ak yow tey gisatuma leen ñu ngi ci biir foofu mais nattu la bu leen yàlla teg ñu nangu ko buñ ko nangoo rek boroom bi da koy teggi ba pare indil la yeneen xewal gis nga euh, Fatma nattu yàlla nañ koy nangu Fatma Fatma Fatma des fois dag may waxloo quoi mais gis nga yàlla dafa mën nattu doomu aadama gis nga doomu aadama bi yow di toll des fois ci benn guddi wala di toll ci benn jamono boo xam boo amul gëm-gëm gëmoo yàlla wóolu ko dangay ngay barki Serigne Touba man doon naa Modou mbay bii ma doon di liggéey télévision di xëy di liggéey aw ma paas barki Seydina Muhammadu Rasulullah doon naa Modou mbay bii ma doon aw ma aw ma oto du nattu de loolu sant yàlla mais maanaam pour wan la ay des fois yenn métit ma doon man kii ma doon xëy war a dem liggéey bantamba billahi amuma paas ma dugg sama néegu yaay ñaan ko paas mënoon na ñàkk amoon na nu mu doon demee du ma ñàkk paas dafa am lu ma gëm dafa am fu ma jëm dafa am lu ma bëgg ëllëg léegi nag loolu nag foofu nga jëm ëllëg loolu nga bëgg ëllëg boo bu dee danga nga ko gëm mu doon dëgg ci yow yàlla dalay teg ay nattu ci yoon bi boo dëgguwul rek doo fa yegg boo ko gëmul rek doo fa yegg fan ma billahi wallahi toll naa fi ma toll nii ñëw wax ma soxlaam mënuma koo faj cent francs yoru ko pour faj ko barki Serigne Touba mais damay sant yàlla su ma ko mënul faj utal ko ko ko fajal am sama soxla mënuma koo faj ma toog muñ moom duma ko wax mbindeef ba yàlla indil ma xewal ba ma ko war a fajee ma fajal ko noonu loolooy àdduna doomu aadama bi faaw suñu borom di la teg des fois yenn business yoo xam dalay natt xool yow mi yaay kan war naa dem Gàmbi war a liggéey aw ma essence ak yeneen bu jo ay ay affaire yoo xamante ni daf lay leer ni yow mi sa morom yi nga tollal ni woon yi wax ñoom tollootuñu wax ñu yooyu ñu ci yeneen mais yow foofu la la yàlla teg nattu boobu la la yàlla teg danga morom yi nekk ci yëpp maa leen njëkk ci télé mosuma tukki nattu la ko dogal dama ko nangu dama koy nangu bu jotee dama koy am bi mu jotee pour samay kayit leer dafa leer bi mu jotee pour ma am passeport dama am passeport bi mu jotee pour ñu ma ne ma kañ dem déposer visa dañ koo def te ko defee dañ maa léegi bu tukki jotee dinaa ko def lu jot yomb ci àdduna mais aussi lu ñëw rek xamal ni période boobu loolu la la yàlla dogal am na benn affaire bu nekk ci sama téléphone bëgg naa liiral ko sama mbokk yi phrase bu gàtt la rek ci screenshot bi la nekkoon dama ko romboon ma screen ko mu ne la roue ne tourne pas c'est Allah qui don aux gens ce qu'ils méritent au moment le plus juste ay bul bi day tourné yi tey ci kii la neex suba ci kii la neex déedéet yàlla sunu borom mooy jox doomu aadama bi li mu mérito ci moment boobu waaw léegi na boo ko nangoo rek foofu toj boo ko nanguwul nag ci ay jafe-jafe ngay dëkk nañu nangul yàlla dogal. sëñ Moustapha nee na àdduna ba luy sa wërsëg di ko jot ku sa wërsëg jeex nga faatu. ku sa wërsëg jeex nga armel yaa ngi nii. te yàlla na yéex yàlla na yàlla def jaamu kontaan naa trop jërëjëf. di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom Modou Mbaye kon li ma waxee dama am bu baax a baax su ma koy jël sax yàlla xam na ne billaay du ma bëgg émission bi jeex. di ko ñaanalaat jàmm rek yàlla wéral baatam ci barke yonente bi di ko kontaanee nag bu baax a baax ndax heure bu ma ko waxee yàlla xam ne dama naan ko père mu ne ma ñëwal. te ah lay amee moom yàlla xam na ko depuis ce matin tey mi ngi toog di ma xaar di ko ñaanal jàmm rek di la wax ko li ma la waxoon rek yow moom. gudd fan ak wér laa lay ñaanal ndax bal wallaay la azim ndax fàtte woo dara te kon li ñuy wax rek nit moom boo koy lebal da nga koy lebal lu baax ndax ëllëg ndax soo ma lebaloon lu bon tamit amaan du demee nii mais chaque jour yaa ngi may di ma jàppale xam nga di ma conseiller bëgg te lépp loo xam te nit am na ko lu baax rek da bëgg ma am ko dina wax rek yàlla bu ma la décevoir mm-hmm. dina wax rek yàlla baax na yàlla yàlla bootal lépp ci barke a kontaan te yàlla yàlla defal la jàmm li nga may ñaanal yëpp delloo naa la ko Eh, booy def man interview mbégte bi nga ci am c'est partagé fii la waree maa ngi lay kontaane yow tamit bu baax te la ñaan fii nga ko teg nii foofu la de sénégalais yi gis nañu liggéey bi te Fatma sénégalais yi fonk nañ la de fonk nañ la bëgg nañ la billaahi gënal góor góor góorgóorlu damay seetaan say interview dégg nit ñi di li ñuy wax ci yow yal na yàlla sàmm la yokkal bul changé te yow sax doo changé bokkoo ak ñooñu di changé. kontaan naa ah, moo fi nekk. maman rek laay topp. moom rek laay topp moom la ma yàlla booleel nit nag moom bu la yàlla booleeg nit waaw dangay ngay jéem a ànd moom jàppanteek moom bi may bëgg ma koy bëgg du tey boobu moom mënagul man mënaguma ma boobu boobu du dara man du ma dara yàlla nag bàyyi ñu nekk ci nekk ci nekk ba tey ba ba yàlla dogal ko ñu nekk mu nekk sama soxna lu jot yomb jaar nañ fu ne liñ daj billaahi fi ma daj ak fi ma jaar ak yaay moo ma la ko nettaloon nga daw fu ne dem nañ fa lu ne daj nañ ko gëm bi mu mat bi mu jotee sama papa dafa dem waxtaane ñu may ko soxna mu jeex foofa toj may la mbay ino kayna yoon fa yirib jaga oxeena mota gore